mbokk yi ñu ngi leen nuyu te di leen siyaare nu fas yéene dëkk ak yéen ci ndenkaane yu sëriñ bi sëriñ bi doon ne yow mi sàkkoo am ak mucc akuk texe tey sàkkoo am ak tanawu mooy bénéfice ci mépp mbir dina ak alaxira sàkkoo am defaru mbir Naga sax ci ñett yi doon aji gëm ju ak gëmum wer nanga doon ab julit boy jafé santana yalla yi bu wer naga doon it koy def ta yalla rek tax te lepp lo du mbir mu rafet mo man amé tiyaba bu ci jëm mukk bu ko def mu ne it lépp loo xam ne weesu woon nga ko ci ay ayib ay sikk nanga ko daldi far ci sa bopp ni nga koy faree nag mooy tuub tuub gu sell jëme ci yàlla sunu borom mu ne it na ngay gaaw sempiku seet wecc ci ak mooy cig tuub jëm ci sun borom kon di nga daal di kon ni ko xee mooy dangay rëccu ci sa xol lépp loo mos def ci ay sikk ak lu dul noona tuubal ko yàlla waaye it fexe ba garanti say cër ci ñu bañ a jëmati ci mooy googu nga daldi tere say cër ci ñuy dellooti ci mooy googu say giirug dund loolu tudd nañ ko fi ay yoon ci ni ñuy tuubee waxoon na ca ginnaaw bu yàggul rek ne dangay mel ne ku joggi aw xal fexe fasiyen do doo tegas tank xal mom kenn du ko joggi di ci tegas tank te tay ko ak tub non la demee xol bi day reccu làmmiñ bi day def istixfaar jeglu cër mom day bayyi moy goge bañ caa dellooti mu it na nga dimbali ko yalla, ndax yalla kat ku sakku ci mom dimbal ba dimbali la saytaaneek yu ni mel dañ lay daldi ragal bax lu jafe la waaye bu yàlla dimbalee nit ki nit ki boo saakoo ndimbal ci yàlla ba mu dimbale ko rek baax mën na koo daal di yomb lool kon loolu mooy sunu dénkaanal tey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu